nataal ñeent fukk Jésus nee na yéen samay ndongo dem leen ngeen yégal àdduna bi xibaar bu neex bii ku ci gëm ñu ngénte ko mu daldi mucc ku gëmul dina sangu ñu bari dañuy laaj ci gëmu chrétien chrétien bi Jésus la gëm gëm ni dee na gëm ne it dina dekki di dund ci ay waxam ak ay santaaneem gëm ni Jésus dafa faatu ngir musal musal ko ci ay bàkkaaram ak ci mbugalu yàlla xel bu sell bi dëkk ak moom moo koy may doole ak yiw ak njàmbaar gu mu mun a dundee ci li neex yàlla ci tënk sama xarit yaakaar naa ni xibaar bi am na ci yéen solo te dina leen dimbale ba ngeen gën a xam lan la chrétien bi dëgg gëm ak naka la war a dundee nanga dégluwaat xibaar bi ay yooni yoon taxawal saa yu la soobe nga bañ a yàkkamti nga xalaat ci nataal bu nekk nga laaj ndax nangu na ni deewu Jésus ci bant bi mooy li may musal ci samay bàkkaar ndax maa ngi ci li neex yàlla wax leen ak yàlla ci seen xol yàlla ñépp la bëgg bëgg na la amen